Le port de Kaolack, nous en avions parlé et nous en parlons depuis longtemps. Déjà en 2012, le président Macky Sall avait compris l'urgence de la réhabilitation du port et déjà avait pris des décisions. On se souvient, l'année dernière seulement, le président a amener des badges pour la réhabilitation de la navigation dans le port de Kaolok. Ces badges sont toujours là. Et ça nous avait donné beaucoup d'espoir. Nous attendions donc que le port, que les travaux démarrent. Malheureusement, ça fait bientôt un an et rien n'a encore été fait. Mais tout dernièrement, le pont de Founioun, pour lequel évidemment nous nous battons parce que c'est un pont qui est là pour les populations, qui est là pour les opérateurs économiques. Mais ce pont de, de devait être conçu comme un pont levis, c'est-à-dire un pont qui bascule en cas de passage de bateau. Parce que pour qu'un navire puisse venir à Kaolak, c'est le passage forcé. Mais si le pont est fixe, évidemment, aucun bateau ne peut parvenir à Kaolak. Et aucun bateau ne pourra aussi sortir de Kaolak. Donc la conception première de ce pont, c'était un pont levis. Nous nous en étions entendus et le chef de l'État l'avait déjà proclamé. Nous le remercions au passage parce que l'idée du pont, c'est une vieille revendication des populations. Donc, nous sommes pour le pont de Fundi. Mais, si le pont est conçu pour asphyxier Kaolak, évidemment, il faut changer la conception de ce pont. C'est pourquoi ce matin, nous sommes là, non pas pour nous battre contre le pont ou contre les faiseurs de pont, mais nous sommes là tout simplement pour réclamer un pont levé pour que les bateaux puissent entrer à Kaolack et en sortir. ñun amical des amis du port dañu taxaw taxawuñ pour xeex de mais dañu taxaw pour yee askan yëpp comme mu doon waa Foundiougne comme mu doon waa Fatick comme mu doon waa Niodior comme mu doon Sénégal yëpp nañu xam ne pont bii buñ ko defee mooy port Kaolack bii dañ koy gas dañ koy sëkk ba dara dootu fi jaar. suñu doom yi suñu rakk yi suñu mbokk yi nekk Salin ëpp nañ ñetti junni nañu xam ne seen liggéey dafay sakk loolu nag moo tax ñun ba ñuy créer association bi loolu moo taxoon ñu jóg pour mun yu mel nii bu amee ñu xamal ko askan wi yëgal leen ne lii du xeexu benn nit du xeexu Samba du xeexu Demba xeexu ñëpp la dinañ ci taxaw dinañ ci wax moo tax ñu ñëw ñu oleen leen yaakaar leen yéen journalistes yi pour que information bi mun a jàll nit ñi xam ne mbas mii de dina dem bu soobee yàlla mais pon Fatick bee buñ ko takkalee du day doon mbas mu dem ba abadan loolu nag buñ ko seetaanee mel na ni ñun ñoo nangu ñoo tër suñu bopp ñoo daas paaka ñoo rend suñu bopp parce que nag bu boobaa waxuma la sax waxuma la suñu bopp mais dina atte ak suñuy njaboot parce que pon bi tey jii buñ ko defee pon buy ubbeeku mu mel ni pon wu ndar bi wala boog gars yi buñ mësuta tukki boy dem Guinée Bissau point ya fa nek gis nga point bi mun nga ñetti bateau yu mag mën na jaar ci suuf bateau bi dem dox seen sox lu bi Guinée Bissau bii mun a am asamaak Sénégal kan war nañ ko xolaat ñu waxat deug buñu kenn naxé machine ndax machine bi ñu bari askan wi sa dañu yakar ne fi la ci ké bi fi port bi ké la rek machine yi dañ ko fi tek même tay ji buñu narona liggéey dañuy wat ba fu ñuñ di gas di ñew buñu gas dañuy gas di yakal mais loolu waajaguñ ko yow gaal yi léegi tey jii ñu naroon a dellu sax dootuñ am fu ñu aw mais askan wi nañu yeewu askan wi nañu jóg ñu ngi oo ñëpp nag tey jii dinaa leen xamal léegi nii ne mbooleem kilifa diine bu am Kaolack dem nañ ba ci ñoom ñu yëgal leen ko yëglu wan leen ne lii di ñu nar a teg ci kaw Kaolack jaarale ko ci poor bi du ñu jëg tey du ñu jëg suba kon ñun ñu war nañ ci jóg ñu góorgóorlu yee jàppoo buñ ko def affaire kenn kenn moomu ko Kaolack waa yi ñoo ko moom. waa Kaolack parewuñ benn yoon pour accepter pont bi ñu def ko au détriment de not cher kawlak Kaolack la ñu am tey Kaolack la ñu am suba et on se battra bu jaree génn si tali bi dinañ génn ñun ay màggat lañ de nous sommes inutiles ñun kenn mënut a def pression si ñun dinañ génn di wax daañu yóbbante daañ ko lépp daañ ko def pour que nit ñi xam ne ñun Kaolack a ñu ñor. ki nekk Ageroute ak ministre bi nañu xoolaat seen bopp ki nekk nag euh, nu mu tuddati Alioune Ndoye la tudd xam mooy doog a ñëw ay dossiers yu leer lañ ko jox bu ko xoolee war na xam ne lii muy def ndax faisabilité bi baax na wala baaxul bu baaxul mu jël ku euh, matuwaay yëpp vraiment pour mottali yéene président de la république maa ngi leen di gërëm di leen sant